xam-xam doon nañu ko amal ñeel tu tonk yi di juddu te seen waxtu jotul li mu biral moo dina ci àdduna wërngal këpp téeméeri bébé yow jël ñaar fukk ak juróomi gane si nañ àdduna ci anam yu ni mel lu ni mel nag moo tax ñii di faatu ci tu tonk yooyee lim bi dafay gën di takku. donc c'est important que l'on dissémine euh, euh, ce groupe de chercheurs. dafa am solo ñu dajale groupe chercheurs yi nga xamante ne toll nañ ci ñaar téeméer ak juróom fukk ñeenti at a ngi nii nag ñuy amal bile liggéey di ñu jox ay information yoo xam ne mën nañu ko jëmal ci jamono ji ñu toll nii. ndax nag sàkk nañu ñu gëna a dooleel ñam yi ñuy lekk rawatina ci soxna yi nga xam ne dañoo wannu lor di sàkku tamit ñu amal seeni visite ci ñu ma gëna a muccee ayib. des fii si réewu Sénégal junni xale yu juddu ñaar fukk benn yi dañoo prématuré wala seen poids néew lool gis nañ ni nag ñoo ngi xeex ci wàll gi waaye mbir mi dafa yeex lool te li ko waral bëri na. waaye ñun dañu bëgg a atteindre li ñuy wax objectif de deux mille trente maanaam fexe ba wàññi euh, ñetteelu xale buy juddu au ba pour loolu nag am na ay jéego yu bëri xam ne war nañ ko def mais li gën a am solo mooy la prévention te bu ñu waxee prévention bi mooy fexe d'abord que consultation prénatale yi femme bi di ñëw correctement xale bu juddoo tamit nekk prématuré wala mu ne trop petit wala trop tôt loolu am na ici ay euh, maanaam ay euh, euh, traitement yoo xam ne war nañ ko mën a jël ay intervention teel a fagaru ngir xale buy juddu mat sëkk ànd ak wér gu yaram lu ni ma rek moo mën a xeex tu tonk yi di faatu Lancet fas na yéene gën a xóotal gëstoom yi muy def